waaw moo je me nomme Ibrahima Fall un euh, jeune entrepreneur bi commencé nag euh, entrepreneuriat bu yàgg maa ngi dugg nag ci entrepreneuriat en 2013 ma créé sama marque de vêtements touche africaine léegi ça fait bientôt six ans actuellement nag tey jii moo woote waat fi tey jii pour lancer waat beneen marque bu bees ñu naan ko grain de mil mu ñëw nag di yëngu ci wàllu restauration 100 pour parce que tey jii dañu remarqué ni Sénégal doo fi dem ba mukk benn restaurant boo xamante ne li ñuy jaay yëpp ay hamburger lañ xam pizza xama jamais ñuy consommer li ñu moom donc tey il est temps ñuy consommer li ñu moom donc grain de dafa ñëw pour imposer sénégalais yi mil mille bi nga xamante ne mooy suñu cosaanu maam ñun moom la ñu xam moo tax tey jii ñu indi grain de mil tout ce qui à base de mil muy laax caakri fonde ngalax beñu dugub et cetera dañ koy jaay fii nii ci Grand mil mais woo nag sama mbokku sénégalais yi ñëpp ñëw accompagner ma ci projet bii nii incha allah incha allah dañ ko yóbbu fu sori. waa par mhm. juste li may wax léegi nii mooy que ni euh, sénégalais du consommer mukk lu moom tey ji am nañ ci exemple ci Covid 19 bi. tey jii euh, remarqué nañu que ni ba Covid bi duggee Sénégal dañoo amoon problème mu consommation dañoo amoon problème euh, lekk parce que lépp pratiquement ñun li ñuy consommer yëpp lu ci bëri extérieur lay jóge di ñëw fii nii. donc tey bu ñu doon consommer lu ñu moom je pense que ni soxlawuñu tey jii ay Covid 19 ñëw tere ñu lekk tere ñu naan parce que li ñu moom la ñuy consommer donc tey jii exemple le grain mille mil ah, état bi xool projet yu mel nii. ñëw jàpp si parce que dinañu permettre sénégalais yi xool léegi xam seen identité ne lii la ñu moom ku nekk dugal ci sa loxoom mu jëmale ñu ci kanam. bon projet bi nag euh, ci début la ñu nekk donc du ma joxe chiffre gis ngeen tey ji fii ni nu mel du ma joxe chiffre mais dépense la quoi mais suñu vision weesu na lii

ñun les jeunes ñu ñoo war a nekk ci kanam gëm suñu bopp di créer ay affaires yu nga xamante ne c'est innovatrice ñuy ñuy xool nan lañ koy jëmale kanam et puis entrepreneuriat moo dox léegi donc si tu veux faire de l'argent au Sénégal il faut nga yëngu ci wàllu entrepreneuriat pour mu jëmale la kanam. waa grain de mil c'est une équipe tey ji man kese mënuma def dara mais c'est une équipe te ñi nekk sama ginnaaw aussi xam nañ fi ma jëm donc ñoom ñoo ma si accompagner. ci wàllu qualité ci wàllu hygiène ci wàllu lépp li nga xamante ne rek suñu dugub la pare bëgg nañ ko defar ba nga xamante ne ni ku ko ñëw nga nga gis suñuy produit di nga xam ne lii dañ ko liggéey bu baax a baax a baax ba duñ ci am benn gàllankoor incha allah. ci satisfaction client mhm. actuellement niveau bu ñu toll nii je pense que mun nañ satisfaire client bi. peut-être que bu ñu demee nag ba dépasser les frontières peut-être bu boobaa nag ñu xool yan matuwaay la ñuy jël pour euh, mën a yegg fi ñu bëgg a yegg. ci euh, waaw parce que grain de tey jii euh, ñun suñu mbëbët weesu na fii lii benn mun naa ne benn pose pierre la rek ci début lañuy commencé waaye bëgg nañ ko gis partout à Dakar. ba nga xamante ne nii soxlawul ngay dëkk bërëb bu sori war a ñëw euh, Derklé Liberté cinq pour mën ko am donc loolu moom forcément ñu ngi koy liggéey te incha allah dañ ci yegg. tey yamuñu sax ci consommation sénégalais lambda bi mais entreprise yi tamit ci lañ bokk am na entreprise yi nga xamante ne nii dañuy ndekki par exemple xam lañ xam croissant la ñu xam voilà il est temps ñuy consommer fonde bi ñu moom beñu dugub bi ñu moom ñu leen ci woo xam nga. di ci woo nag euh, tamit autorités yi surtout ñoom it projet yu mel nii ñu ñëw accompagner ñu ñu mën ko yóbbu fu sori incha allah.